Nabou Dash moom Ndeye Gueye moom da koy da koy défendre xaw ma lan la ko Nabou Dash jox Ndeye Gueye dafa am lu la Nabou Dash jox. da koo ragal. billaahi wallaahi barki Cheikhul xaw ma Nabou Dash mosuma gisante ak moom. yàlla ma tiim xam na ne xaw ma ko. gaa yaa ngi lay jëw de waa waa gaa yi ñi nga xam ne ñu ngi ci. yàlla mi ma tiim xam na ne xaw ma Nabou Dash. bind bindkat yi. billaahi wallaahi xaw ma Nabou Dash. c'est que man c'est que man man dafa am lu nekk ci man Jimbori man dafa am lu nekk ci man man dafa am dafa am nu may doxee. man dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi. Ah. nit bu defee lu dul yoon. Ah. mu tay ko. Ah. ma dal ci kawam. mais doo jigéen. ji ah déedéet du ma ko jigéen traversir la. non man ni ni nga nekkee jigéen moom noonu la nekkee jigéen. waaw li muy def di ko def. non bokkuñu ñun ñaar bokkul. jàmbaar xam nga man ndey gay mii dama gis mu toog fii mu ne kenn jëndalu ko connexion. waaw. kon léegi yow Ndeye Gueye réew mi daal nga jël def ko lu neex waaye daal def. déedéet déedéet tolluñu foofu. Ah, non mais. non non non tolluma ah, foofu. déedéet déedéet déedéet parce que yow parce que kaay ma wax la benn affaire su fekkee nit dafa def lu lu xam ne naay sut. secret biir ne ku ko indi ci penc yaay fenkat bi. noonu laa woon. am na wala amut. waaw lu dëgg. gis nga lekk. ak sëy kenn du ko jàngal kenn. dangay ngay judd rek toll fa di ko def. te xale yi léegi fu ñu làq fu ne jàmb fa seen daqaar naan li muy jàngale noonu am na ñu mën pire te wanewuñ ko. xamal lu ñu bëgg. vidéo yooyu ak affaire bërki démb ay saaga ndey la doon def. waaw parce que dañ ko tooñ. waa ji fay fay ki dee ki dee noonu ak entre jabar ji yow seetaanoo ko de xam nga man lu ma bëgg xam lu ma bëgg man nii man nii man. su ma gisee ku deful yoon damay dal si kawam billaa walaay ne bu ma gisee kuy song nit tamit ma ne ko yaa ko tooñ mais man xam nga lan laa bëggul comme am na loo xam ne nii bu ñu koy wan suñu xale yi bu ëllëgee fan lañ jëm waxal. ba pare internet dafa ñëw te Sénégal Sénégal miinuñu internet carrément. maîtriser wuñ ko. waaw ba pare euh, américain yi américain yi ak tubaab yi. internet bi la ñuy contrôler Afrique. parce que dëkk bu nekk ñun internet bu ñëwee nii mënoon nañ si béggee sax di di foo mais daf ñoo yokk ay noonu. waaw mooy ñoom benn bët bi ñuy xoolee jamono ji pour mën ñoo. waaw ba pare Sénégal dong ngay gis ko xam ne dañuy dajaloo ñoom ñëpp di réunion pour yàq benn mhm. day am. du ñaaw la chaque jour da gis internet bi ñu jàpp. mun nañ jàpp ndéygay lëmb lëmbee jàpp waali sekk lëmb lëmbee lii la def laa laa laa lëlëlëlëlë mais mais kalaasu aadamoo gi moom baax nañ ci ndax ñoom dañuy génn yenn kaay weer ko bu ëllëgee nga dem toog bañ koo defati kooku bay jaay taatu nit man nag ànduma moo tax yaayam mel ni fiil. <laughs> ànduma ak yow de baax na ci réew mi dugg ci yaay jàmbur waaye. xaalis bu dugg ci yaay jàmbur waaye. Adamo baax na ci réew mi non non non non par respect bu dugg ci yaay jàmbur. xaalis yi muy jox seen waa kër. waaw xaalis yooyu muy ah. seen waa taatu nit ñi da ciy fayee. defal ndànk nag. loolu amoo ci dara la leer wóoru la. nañ bàyyi tooñ. nañ nañ jàll feneen. parce ah, que tooñ waaye. fayeeku taatu nabutage daal li ma lay wax man ba wax la ko. Ah. mooy. Ah. li ma waxoon rek laay waxaat jëndalul kenn connexion. xam nga wax naa ko moom mu génn defal ma vidéo tey laa ko gën a mën a wax man lu ma ragal wax toog fay jooy dama ni ñun sénégalais yi ñoo koy seetaan ba xam ba ci ba ci am lu ñu naqarek lu ñu naqariwul du dëgg. Hmm. waaw su fekkee neexu la doo est-ce que Nabou dafa forcer kenn ni kay kay seetaan ma. ah yow noonu nga ko jàppe ah, ah waaw. mais mais mais kaa wax la dara. mbedd mi ñun ñëpp a ko bokk mais am na loo xam ne waru la. non man man sama bopp laa xam. non yow non yow ko def mais doo ko def mais keneen tamit yedd ko ne ah moom kat. nii mais mais yéen yéen a yedd doomu jàmbur du ngeen bàyyi jàmbur. am na jëkkër am na yaay am na doom am na famille famille man koy seetaan. man a ko xool yéen seen yoon def ci nekk bàyyi leen ma koo ah, yedd de bàyyi leen ma waay nag. yedd de. Ah. jéem ma koo yedd mais dama ne am na yoo xam ne jekkul jaaduwul rafetul. ci am na wala amul. ci réew mu mel ni Sénégal réew mu mel ni Sénégal réew mi sëriñ Touba da cee sonn. waaye yow eh xool alaaji Malick sonn ci keneen ak keneen sonn ci ba dem ñun ñu am ay yiw mag ñu baax ñooñu bu njëkk ba xoola bu njëkk ba mag ñu baax ñooñu bu fi tëddul woon ba tey kenn waxatu ko kan ma ne mag ñu baax ñooñu bu ñu tëddul woon ci réew mi kon ba tey kenn waxatu ko waaw léegi nag léegi dama ne léegi lu gën a pire lu gën a pire su fekkee nabu daal dafa def lu ko gën a pire ci réew mi man man rek la leen waay warul am kersa bàyyi leen tooñ nit warul fii kenn ku nekk lu waay def boppam kenn ku nekk fiyal sa fii. bu ñu ko defee noonu l'islam gàddaay. yaa ngi ko defee xoola am na wax yoo xam ni. chaque jour ma ni wax yooyu suñ ma mayoon bu ñu doon nit dama leen di rey suuli leen. yow lañuy jëkk njëkk a rey ndax yow yaa gën a naa ñëw si yow yow garaaw mooy ban wax waaw xoola ah. euh, euh, euh, kii <laughs> kaay ma wax la benn affaire xoola sa nawle la ndeysaan su ma ko mënoon a rey dama koy rey suul ndax nawle amatul say nopp say nopp yaa ngi dégg. su ma ko mënoon a rey suuli ko. sama bopp ma la gënal du bañ naa la. yëpp yu dee la. sam am na ko xam ne nit ñi gënaloon nañ ko boppam. muy Serigne Touba. ak ñeneen ak ñeneen. pour lan lan lañ doon xeex. pour ñun ñu am yiw xanaa am la diine bi muy ñëw ci Sénégal fekk na fi yiw. Mhm. mais léegi diine nan la fiy nekkee yiw di bëgg a ñëw waxal. c'est parce que ñu naan noo sama yoon new si da ngay gis ko xam ne day gis doomam naan ko xoolal si diw xoolal si Aline Ndiaye sa nawle la li mu am war nga koo mën a am mhm. nawle ci diine la am xoolal si diw day julli sa nawle la del julli comme moom mais xoolal si diw sa nawle la li mu am war nga ko mën a am loolu moo tax jigéen ñi léegi génn ba pare gis nga divorce yu bëri yi ci dëkk bi est xam nga lan moo ko indi la ko indi kaay may jigéen bu njëkk ba ah. da nga daan gis benn jigéen nekk ci koñ di liggéeyal maire yu bari bu ñu la daan takk dañ lay laajte am na wala amut. bu est ce que xam nga lu tax jigéen ñi génn ci mbedd mi di dem si auberge yi tamit. sa sœur day dem sëy tas ñëw si kër gi yow góor gi nga war koo dimbale di ko cotiser loo. gis naa si ko xam ne nii jëkkër ji si boppam comme dafa ne bu ma ko naree joxe ma jox ko sama jëkkër di woowaat jëkkër ji jëkkër ji nekk bandi jëkkër jee ko ëmbalaat bañ ko. ah bon. doo dégg de. garaaw ngay développé. dama ne xoola xam nga lan réew mi. xam nga lan la war a def esprit de partage am na ko xam ne ku ma neex la. dama ne woon su ma ñëwee fii sax comme moom dégg naa ko muy tudd turam lu bëri. kii moom ay affaire am man ça va mais dama ne woon su ma ñëwee. Mhm. dinaa wax Ndeye Gueye mu wax soxna Aida. Mhm. lu mu mën mu def ko si dimbale jaamu yàlla yi. danañ ñëw ci soxna si. yaa ngi dégg. Mhm. kooku sebon mu ngi def lu rafet mais ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne dañ fiy nekk naan xoola si diw xoola si kii xoola si kaa da ngay dem sëyi ba ñëw kenn du la dimbale bàyyi la noonu di la duñ la jàppale sa doom bu yeewoo suba teel tey sa sœur dem na sëyi ñëw indaale ay doom te léegi gis nga ne góor ñu bëri suñu wàccee jigéen dañ koy bàyyi ak njaboot mu dem yaa ngi dégg ba pare est-ce que xam nga xale bu nekkul ak yaayam xale bu góor gi bu jëlee xale bi léegi bu ñëwee bu xëyee suba teel dooma doomu càmmañam yor mburu doomam du yor mburu mhm. ñu defal joo doomu ca doomu càmmañam euh, omelette moom du yor omelette bu bu ko defee càmmañ li ñàkk fayda ni gafak ak jox naan jabar ji demal nga ne ko bu ko yoree 1000 francs mu jox la ko bu la yoree 2000 mu cotiser ci courant bi bu yàggee femme bi nan lay def Euh, dooma dimbali ngir yàlla nga dugg ci beneen débat kii di kii di wax nii rek mel ni imam mais nag li muy wax nii dafa am solo lool ndax gars yi ñu ngi waxal bu yàggee nan lay def day dugg ci day génn jaay boppam waaw dugg ci leen gaay gaay gaay day génn jaay boppam ba pare gaay xam naa ne xam naa ne xam naa ne xam naa ne tey moom benn affaire xam naa ne tey moom dinañ di ndéygee baal jimbóori rek mu wax daaneel nga ndéygee tey moom non man tey eh, man damaa am lu may kenn daa mën a wax ba yaay. non yaay nga ko tey moom gis nga. kenn mënu koo yaay. nangu na nangu na de. le cas de le cas de Nambou Daas. c'est que problème bi mooy Jimbori. Ah. dañu nekk ci réew moo xamante ni. ndege yow war nga wax sax jigéen ñi. niñ leen di maltraité ba pare. fii yow yaa gën a xam ne fii. gars yi yoruñu jabar jaam la ñuy yor. ah sama bos de bokk ci. non waaw mais dama ni ñu bëri da ngay gis ko xam ne jëkkër ji day yuuxu di ko maltraité bu lu mu deflanteeg moom génn wax ko ci mbedd mi di xam nga yooyu bëri na fi gaa yoo xam ne nii mooy loolu mm-hmm. waxaat rek mm-hmm. nañ respecté jigéen ñu tuuti parce que benn sëru jigéen mooy ëmb téeméeri tubay góor mm-hmm. waa léegi duggal bàyyi kii mu dugg ci beneen cas lu wér nga wax wér a wér a wér la la jimboori wax waaye am na ci waajoo xam ne mu ngi ci saal bi di di luux luuxi rek mel ni koy suul gu deewut war naa gaaw génn su ko defee ñu mën a ñu mën a ñu mën a def suñu émission tranquillement voilà donc waa euh, waaju waaju sop lañ fi am voilà dañuy jàll ci beneen cas à kaaw kaw Nabou Daas dañ koy dénk rek moom suñu jigéen joojule mu soppi wat lu baree bari parce que bu ñu nee influenceuse ça veut dire que dafay influencer ñu baree bari ñi koy suivre donc nag war na di joxe. sénégalais de doo ne ko dangaa ngaa mën a fecc boo ne ko da ngaa mën a fecc bala moo génn ca géew ba puup